naka ngay laabalee sa koor ci wàññeeku waaye tamit naka ngay dugalee li di kontaante ci xolu ñu ñàkk ñi ñu daldi kontaan comme ni ngay kontaanee ci bésu korite settantaalal waxu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na lii di murum koor mu nekk luy laabal ki waroon ci waxu mboosoor ak jëfu mboosoor waaye tamit mu nekk ñam ñeel ñi nga xamante ne ñoom dañoo ñàkk murum koor dafay daal di war ci bépp jullit mu daal di koy génneel boppam ak ñi mu téye seen dund comme soxnaam wala ay doomam waaye nag dana war ci koo xamante ne moom am na lu ëpp dépense am ak dépense njabootam ci bés boobu le kenn du chartanteel nag mu daal di am nangam bi ci alal dayo bi mu war a génnee mooy lu tollook ñetti kilo ci bépp pepp bi nga xamante ne nit ñi dañ koy dundee lu mel ni tàndarma wala ceeb wala ñebbe wala yu mel noonu ci xadiisu ibni umar radiallahu anhuma mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam faratal na lii di murum koor mu tollook ñetti kilo ci tàndarma ci bile loolu ci jaam wala ci gor ci xale ci góor ci jigéen ci ku ndaw ci ku mag ci jullit ñi digle na nag moom yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy génne lu njëkk nit ñi dem julli dana war nag ci timisub euh, bés bu mujj ci koor la gën nag mooy mu daal koy génne balaa moo dem julli ji dara nekkul nag bu nekkee génne na ko ci benn bés wala ñaari bés balaa julli comme euh, guddib euh, vingt-huitième jour ngir weer ci jullit benn mu nekk vingt-neuf wala mu nekk trente du dagan nag daal di ko yéexee gannaaw julli képp ku ko yéexee euh, gannaaw julli kooku moom am na bàkkaar mooy na yàlla lu dul nag kon mu am ngant dana war tamit doomu aadama bi daal di koy fay kon gaawantul yow jullit nga daal di génne sa murum koor ci teeyu bakken waaye tamit nga sakku ci payooru borom bi subhanahu wa taala